ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ku toog ci seen bureau Core T4 Core X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci dañu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gii leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien. jataay bi di ko waral mooy jataayu sant yàlla sant yàlla ak sant Serigne Touba ndax bis bii kat bisub day bisub cant te sant kat dara gënu ko màgg ci alxuraan moo tax ma ubbee aay bi ma ubbee ndax boo delloo ci alxuraan suñ borom wax na ko fu baree bare bare cant nag. la ci jiitu booy cantu cantu xol mooy wa bi wa bikum min ni'matin fa min la ak cantu làmmiñ mooy la in shakartum la azidannakum ba ca des mooy cantu jëf i'malu ala Daawuda shukran waaye nag dégg ngeen daje suñu borom teg wax qalilun min ibadiya shakur kon sant lu jëfe loolu itam Cheikh Mouhamadou Mountakha bi nga xamee ni li xew lépp lu mu ci mas di def ñii lif adduna si na mu ko waxale boppam di cee dégg ak yàlla def na man seere laa ci ba ma yónnee ci ki jiite réew mi président Macky Sall di ko xamal màggal gi yéen jëm ci am ak li ci bëgg la ma wax mooy te wax naa ko ci télé bi ñëpp dégg ko yaakaar naa ku arrière da nga ko ci fekk nee li ma ko ciy fay mooy na xelam dal jàmm rek ci am kon nag yey na ñëpp kon nag wanee na ne lam doon wax ci yàqin la ko teg waaye nag tegoon na ci wax ju solo ci biir ba bërki démb rek xam na ko ba nit ñi njëkkee ñëw di ko wax ne Touba de dañoo seetlu ne jàngoro ji jeex na fa wàññi ko na mooy loolu nekkul ci suñ ginnaaw suñ kanam la ne suñ Touba noppi ne ci nañ ko bàyyi ci loxo waaye nag mbirum mbirum baatin nag du lu ñuy fooyee du lu ñuy bàkkoo itam kon lu ñuy sant suñ Touba waaye du lu ñu bàkkoo kon loolu itam sëriñ bi da koy wax ci ak wéet lu bare bare nee na mbirum baatin du lu ñuy fooyee du lu ñuy caaxaan mbirum Sëriñ Tuubaa ko bàyyi moom waaye nag du lu ñu bàkkoo kon ñun li ñu war bàkkuñ dañuy sant. lii ko Sëriñ Tuubaa sagale ci kanamu àdduna wane na ne Sëriñ Tuubaa tey la fi gën a ne Sëriñ am sori jaxat daana ko wax nee na kuy nattam ne Sëriñ nekkatu fi kon boobu amul dara ci basirut waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha yaqin ji mu amoon ne jàmm rekk a xew wane na ko ndax ñii nga xam ne ñooy wàllu àdduna gi wane nañ ko wax nañ ne. màggat gisuñ benn jeexit mu am ci jàngoro kon nag loolu nañ ko sant yàlla te sante ko Serigne Touba te bañ koo bàkkoo Cheikh Mouhamadou Moustapha nag waxoon na soxna Maymunatu ne ko Maymuna lépp lu la yàlla defal ci sa biiri nawle na nga ko sant yàlla te bu leen ko woon boobaa yàlla doo koy gën a yokk kon nag ñun nag li ñuy Serigne tubaa defal ci biir àdduna lay wax ndax njabootu Serigne Touba dafa yaatu. adduna sépp la ne te Serigne tubaa xartalul mbiram képp ku ko sopp rek tàbbi nga ci biiram kon ñu itam nañ ko ko nañ ko sant yàlla sante ko Serigne Touba ko bàkkoo boobaa kat tawféex rek lañ jural te xam ne Serigne Touba dafa yaatu te moom wax bind na ni li may ñaanal jullit yi nga xam ne aju nañ ci man laay ñaanal jullit yi aju yi gëm yàlla te ajuwuñ ci man ndax ren jii kat xam ngeen fi àdduna toll waaye Serigne Touba. wane na ci xar baax xar baax yi mooy ñëpp ñëw nañ yàlla aar na dañ ci jàngo bañ delluwaat ci jàmm kon loolu xar baax féetewu kaw jamono xat na ci àdduna sépp nekk ci kiris ñëpp maase nañ ci xam ne bañ nee suba la màggal gi aw nag wala xar desatul ci dëkk bi te loolu mos am looy itam wane ne xar baaxu Sëriñ Tuubaa kon suñu Tuubaa foo ko natt rek weesu na ko kon li ci des mooy gën a góorgóorlu gën a feddli suñu laxasaay gën a feddli suñu positif te xam ne Serigne Touba lépp loo xam ne ñaan na ko suñ borom suñu borom may na ko te lii ñu weesoo itam wane na ko nekkul loo xam ne euh, lu ñu natt cim xel la wala lu lu ñuy gént wala lu ñuy xalaat day waaqi amal muus ñëpp ci teg seen ñëpp xam na ne li xew xar la xaar baax nag Serigne Touba ñoo ko fàggu Serigne Touba xéwalu yàlla la ne ko Cheikh Sidiye waxe woon wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha suñu borom kenn mënta lim xéwal yi ñu defal.